ci suñu ko wax waaye également ci président de la République Macky Sall. sëñ Cheikh président de la République sa xarit sa doom sa wëlëre sa taalibe sa soppe moo ñu fi yabal man ak délégation bi àndal ñu ngi leen sànq waaye dañu ràññee bu baax a baax sëñ Cheikh Abdou Gaye Fatma ministre conseiller di doomu secrétaire yi sa di doomu Touba ñu ràññee ci tamit bu baax a baax Isma Dioum ni ñu ko waxee sànq rek ci kër gi la bokk di conseiller spécial du président de la République Macky Sall waaye tamit ñu ànd ak El Hadj Dia excellence ambassadeur itinérant ñu ànd tamit ak gouverneur de la région adjoint préfet Mbacké waaye tam ànd ak adjoint sous-préfet bu Ndam bi ñëw nag ànd ànd nañ tamit ak les maires ñi ne ci département bi yëpp waaye laaj bu baax maire Touba Mboul Mansour Niang ak yu maire dem maire Dal Ngabou Demba Diouf waaye tamit fekk na fi lu maire lu maire lu ngay jël ak tamit Bara Sow di conseil spécial waaye tamit ñooy ñu fekk sa soxna Mame Saye ak sa président de la République ñu bokk ci délégation waaye bokk tamit ci jaboot yi ak responsable yi ñuy jàppale ci fànn yu ñu nekk waaye responsable yi nga xamante ne ñoom ci guddee ji seen président de la République ni at mu ne moo ñu fi yabal léegi bu ñëwee dañu yëkkati kàddu kàddu yi cant kàddu yi ziar kàddu yi ngërëm jëm ci yow ak si njaboot yëpp njaboot seen son yu ndax it leeral gis nañ ko jàpp ko téye tey naaw bu baax a baax sa taxawaay ci mbir mi ak ci yoon mu ne bu ñëwee nañu wëkkati kàddu fekkandi ko la rek kàddu yu ziar kàddu yu taalibe jëm ci yow mu di la gërëm sa jàppale démb barki démb ñaan ak say yéene bisu tey sooy bu nag day bis bu am solo ci réew xam bu baax a ndax ku ne si xam na ne li nga xamante ne moo ne woon ci seen bi mooy fonk alxuraan ak wattu ko waaye tamit wasaare ko ci askan ak ci njaboot yi sëñ bi dana ko mat sëkk loolu sëñ Bassirou wax sànq lu wér la tey ku ne ci mën na koo mën na koo dëkkal buñ demee ba tey sëñ Moustapha Bassirou Mbacké samp université fii ci ngir ñoŋal ñàngum xale yi ñàngum taalibe yi ngir ñu gën a am xam am métier loolu jàpp naa ne it njeexital nga xamante ne nii ne woon taxawaayu suñu sonk ci yoon bi kon nag loolu nga xamal sëñ bi jëmbat na ko ci moom jebbi la ba meññ ba agsi tey ci ñëpp kon nag bis mel ni day bis boo xamante ne nii dina tax it képp kuy taalibe rek wala ku dëkk ci réew mi nga war a gën a bàyyi xam-xam ndax xam-xam yi sëñ bi yonent Yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu wax nañ ko sàkku ba Chine booba Chine jegewut waaye tamit lépp nga xamante ne nii moo war ab taalibe wala citoyen mooy nga sàkku xam-xam waaye xam-xam yi nga lalu ci njub ñëpp nekk gëstuwaay loolu nag sëñ bi ci ngeen nekk bu baax te ñun ñëpp xam nañu président yi daa waxoon ne bis bi nga xamante ne ci weeru koor la ndax seen sonné bu comme weeru koor weeru koor mooy weeru alxuraan mooy weeru ngëneel mooy weeru yërmande ñu sàkku ci bis bi ci weer bi ñu sàkku ci yow ba naa li am ci réew mi. yàlla jàpp ko mottali ci bari mottali lépp tey ñu xam ne it ku ne si ñun am na gis bu baax a baax taxawaayam ci réew waaye nee na bu ne nañ sàkku si yow nga ñaaral ba nga xamante ne it mooy yitteem ci Touba nekk yitteem ci yoon bi nekk yitteem si Mountakha yàlla gën koo jàppale ba mu jëf ci lu koy njortam ndax yéeneem ak taxawaayam lépp lañ gis rek mooy asaka li nga xamante ne nii moo nekk ay mébétam jëm ci réew mi jëm ci askan bi jëm taalibe yi taalibe yooyu lañu waxoon sëñ bi ñoo ne ko njëbal di sant ñëpp di gërëm ñëpp ci déglu bi ak teewlu bi jërë ngeen jëf wasalaam